parce que Kara Kara man comme ni ma koy waxee rek euh, entraîneur bi moom moo choisir li mu li mu jël waxuma ci dara te mënaguma ci wax dara tamit tant que demuñu ba nga xam ni affaire yi door na ñu doog a ciy wax ko mooy ni ma wax rek euh, Kara élément bu amoon importance si équipe bi léegi euh, entraîneur bi jëlu ko Sénégalais yëpp xam nañ lu tax entraîneur bi jëlu ko dama ni Kara lu tax jëlu ko loolu ñëpp xam nañ ko du au niveau football ndax Kara moo nekkoon devant équipe type bu coupe de coupe de coupe d' Afrique bi Koulibaly nekk ci woon te Kara ma ngi ci. donc man li may wax football la li may wax rek moo di Kara jëlu ko moom la engagé peut-être que aussi en euh, euh, peu de temps il aura raison sur Kara ou bien Kara am raison si moom mais jëlu ko déggoowuñu on dirait que Kara wax na looloo tax mais kooku je crois que léegi faux débat la nekk Sénégal léegi Kara moom sax si boppam man xam naa ko bu baax jàmm la leen di ñaanal léegi. Kara xam na boppam entraîneur bi xam na xam na lan lay xaar xam xam na xam moom xamoon na ne xaarul dara ci entraîneur bi et c'est tout le plus important man j'en suis sûr et certain que Kara euh, n'est pas dessus parce que xamoon na sooram bu baax ñun ñii tamit ñuy seetaan football xam nañu sooram bu baax si Kara jëluñu ko parce que parce que amul ay qualité yu xam ne warul mën nekk équipe nationale ndax mënoo nekk le au top des top d'un seul coup nga nga nga nga bàyyi gis nañu joueurs yu am ay croisés dellu si nekk ci forme mais daal débat boobu pour ñu tënk kat tey rek. bañati ci wax moo di moom ak entraîneur bi neexoowuñu te ñëpp xam nañ ko léegi soxlawul ñuy xool ay alibi mais nag c' est comme ça équipe sax da gis joueur bi neexul ak entraîneur mais du ko dugal. c' comme ça mais nag kenn dana am raison si ñoom ñaar ci keneen mais l' avenir nous dira et que espérons que Sénégal dina gagné Coupe d' Afrique bi entraîneur bi am raison si moom. mais Kara si boppam man j'en suis sûr que ni. amul problème day ñaanal booy yi parce que nit ku baax la xam naa ko bu baax a baax nit ku baax la nit ku nit ku dul jàpp mer la et moom depuis depuis li mu waxoon pare na ci et pare na ci.